jàngat bi de kan sant rek la kontaan ci li nga xam ne madame la première dame defal nañu ko parce que xam na ne xam na ne maire yi ñoo yore dëkk population ñoo jox maire kàddu maire kàddu pour mu mun a jàppale population donc moom bu mu ko xamee dafa jàppale ay communes yu bare yàlla def Kaolack bokk ci mu jox ñu nag ay ndimbal yoo xam ne ay laa mu ngi ci ay ndox mu ngi ci kireen yoo xam ne bu tey 10 litres la Euh, defe naa 600 bouteilles boko xolé ci 10 litres ay 6000 litres d'eau la eau potable eau minérale def ci ay euh, gel hydroalcoolique def ci ay masque defal ñu ceeb defal ñu ay savon ay matelas defal ñu nak li gëna am solo muy ay auto yi ñu jox mu am 4 moto pompe yoo xam day liggéey pendant fukki fan wala lu ko ëpp ci commune bi dimbalé ñu ba ndox mi jeex loolu ndimbal bu rëy la bu am solo la tey moo tax ñu def lii pour sant ko gërëm ko mu ngi sant bu baax commune Kaolack mu ngi sant bu baax madame la première dame mais mën naa ne Kaolack yëpp ñooy sant bu baax madame la première dame te gis nañ ne def na ko ci yeneeni région def ko ci yeneen région euh, ku ku gërëmul nit nag doo gërëm yàlla te nit ki bu la defalee lu rëy da nga ko war a delloo jukkal tey loolu la mairie Kaolack di def tey ànd ak conseillers municipaux yi mais d'abord ak adjoint au maire yi pour sant ko au nom de tout le conseil municipal ñu ngi sant bu baax madame la première dame ak fondation Service. le